démb ci talaata ji ñi di coalition bi di yeewi askan wi amaloon ab ndaje gu rëy fële ca place de la nation ndaje boobu nag li ko waral moom mooy ñaxtu ci dàq gi nga xam ne dàq nañ ko seen liste nationale ci élection législative yi ñu jëm jàngat nag bi ñu indi tey ci mbir moomu mooy saa yu yu mel ni amee ci réew mi maanaam manifestation ak yu ni mel kii di président de la république du ko fi fekk dafay nekk en voyage ndax tombe moo waral ay gaf dem nañ nag dékk suñu micro ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi ñu wax lan lañ ci xalaat. waaw man sama jàngat mooy ñoom xam nañ réew mi réew mi luy xew luy xew suba rek ñoom xam nañ ko moo waral ñuy ñuy voyager wala ñuy dem feneen ak feneen lépp lu war a xew suba wala ginnaaw suba xam nañ ko parce que ñoo ñu gën a xam réew mi quoi. non Macky ragalul opposition bi parce que instant bi ne réew mi dafa am lu mu laaj rek looloo tax ci loolu laa gis quoi. non loolu loolu waxi politicien rek parce que am na ku am na ku ko fi waxoon benn jamonoy Ablaye Wade mais mujjul fenn loolu waxi politicien rek ak wax yu bëgg nit ñi génn rek xëy na xam na ni réew mi instant bi nii ñu si bëri dañoo xaw a maree Macky moo tax bu ñu wootee benn rassemblement nit ñi dañuy ñëw wuy si leen mais Ousmane Sonko moom ci boppam moom moom fi nga nit ñi tegoon ñu ngi koy commencé weddi quoi parce que da doon wax ñi nekk si régime u Ablaye Wade bi ak ñi rek ñi nekk si régime u Macky Sall bi ñoom ñëpp dañ leen a rey tey moom après mu ne ànd ak ñoom ànd ak ñoom kon loolu lan lay nuru waa yow yaa ngi doon wax lee ba pare yow après nga retourné àndaat ak ñoom kon système bi fi nekkoon ak jëmb ak bërki dem moom la ñuy wéyee mooy continuer tama xool ñi fi toog ñi nekkoon démb si manifestation mooy cadre yi toog foofu yëpp ñoom ñëpp jaar nañ si ay poste ba jàll comme que ñoom dañoo doyalu rek dañoo bëgg lu ñu lekkaat rek moo tax. waaw léegi man loolu lu ma ci xalaat mooy sama xel xaw na ñaaw xawul ñaaw euh, parce que bu nee président moom moo jiite ñëpp en plus du moins bu ñooñu réew mi bu dee xa bu ñu dee am ay tuuti xel ñaar day yëngatu wala du yëngatu rek moom dafa war a jël responsable am toog ci dëkk bi léegi su defee loolu ñun dañuy suñu xel day ñaaw parce que dañ naan ñi ñun ñooy sonn ñun baadoolo yi parce que bu affaire yi ne teel rek dañuy daw dem en plus seen njaboot nekk ñu fi loolu daal xam naa ko ci waaw su ma sañoon daal bu gars yi di yëngatoo teg yooyu noonu comme que moom mooy njiit mu jël responsable am toog xool nu muy demee quoi yokku renforcer sécurité am xool nu muy demee tamit may gars ñu nekk ci jàmm mars comme moom ni mu ko doon defee rek waaw man nag président bi sama président la quoi franchement parle neex na ma mais Sénégalais yi daal defe naa buñ doyalee ci yow rek dañuy doyal ci yow man daal su doon sama sago moom mu fexe xool nu leen di libéré seen seen kii rek seen pays quoi waaw moom daal laa gën a xalaat bañu ma ko nag sama président la daal neex na ma trop waaw waaw loolu laa koy conseillé daal waaw su ma doon moom daal du troisième mandat yi ñuy xalaat ak yenn business yi yëpp mu yëkkati ko teg ko ne ci suuf parce moom yaakaar naa am na lu ëpp euh, ay troisième mandat daal waaw moom am na lu ëpp lool. bien sûr loolu am na ci tuuti xam a sénégalais moom du sos day yokk loolu xaw na ci am tuuti parce que xel euh, xel daal xel xel moo mën a téye ci lool daal Sénégal bu lool amee rek mu daw dañuy yaakaar ne moom dafa ragal wala qu'est-ce qu'il y a parce nekkoon na fi bu affaire di amee noon moom dafay toog du dem fenn waaw mais yaakaar naa nag est-ce du ci problème mu peur beeg je ne sais pas daal comprendre mu waaw mais su ma sañoon daal affaire yi bu yëngatooti moom mu toog fii quoi waaw. parce que président même bu dee guerre sax dafa am warul daw dem quoi dafa war a toog parce ñu nekk ci biir guerre bi di guerre noonu. parce que bu demee noonu rek day xaw a doy waar daal waaw man daal su ma sañoon bu ñuy marsati mu toog xool nu muy demee yokk si renforcer sécurité en plus ñuy marché ñooñu ay sonko gi yoon kërëb kërëb bi bu ñuy marsati bu mu ko tombeek jour mercredi parce que ñun marché mercredi ci la ñuy dóor suñu dépense ci la ñuy daw dàqe te jour mercredi bu fekkee ne dafa am marché rek parce que suñu client yëpp duñ leen gis étudiants yi duñ ñëw yeneen ak kërëb kërëb dañuy ragal dañuy peur daal parce que tellement que fi ñuy yóbbu affaire marché bi la waaw maanaam bu ñuy kii daal tension bi ñu bañ ko yëkkati normal bu baax a baax quoi waaw ok maa lay sant di la gërëm ah. da ngaa merci dégg askan wi nag seen njàngat mooy kii di président de la république saa yu yëngu wala manifestation amee ci réew mi loolu le daf ko fe war a fekk jël nañ sax exemple ci président yi nga xam ni jaar nañ fi ñoom nag jàpp nañ ni kii di président Macky Sall moom moo laajoon baatu askan wi ba ñu dénk ko réew mi jamono ji nag responsabilité réew mi yëpp ci loxoom la nekk loolu la askan wi daal di xalaat ci laaj bi nga xam ne tey laaj nañ leen ko jëmale ko ci manifestation yi nga xam ni dafay am ci réew mi te du fi fekk kii di njiit